صلاة النسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر mbokk yi salaamaaleykum juróom-ñetteel bi numéro baytu bis bi ñu ci ànd ak Serigne Fallou Galass Sylla baytu bis bi tey sëriñ bi dafa wax ne nafsi wa diini summa ahli walwalat wa maska maskani làkka wadixatun abad ana lan la Serigne Touba na ma wax foofee ci bopp boobu bayit mooy nit ki bakkan ak boppam la am su fekkee ne dénk na ko yàlla diineen ji nga xam ne moo tax tubaab bi jële ko fi ngir tàqale ko diine mu ne ko ji dénk naa la ko yow yàlla taalibeem yi nga xam ne bi muy dem ñoom la fekk mu koy soog a taxawal te bëgg leen a tàqale tisaare leen génn li sëñ Tuubaa defoon ci moom mu ne ko dénk naa la ko yow yàlla doomi boppam yi nga xamante ni bii dénkoon na leen maam Thierno Ibrahim mu yor leen di leen jàngal ngir mu sange leen mu ne ko njaboot gi dénk naa la ko yow yàlla dëkkam bii ñu ko génnee amut kenn ku ko fi mën a woote di ko gardeel mu xam ne yàlla moo fi du jóg mu ne ko dénk naa la ko mooy bakkanu boppam diiney boppam ak njabootam ay doomam ab dëkkam la wax ne làkk di xatun abat yow yàlla dénku ma la ko tey bàyyi suba dénku mu ne ko bi may tukki bu ma del see jël ko dama la ko dénk ba faw nga xamante ne bi juróom yooyu yaa ma koy aaral moo tax sëriñ bi mën a am engagement yu wër yi muy engagé wax na képp ku ma napp ci yow seytaane du ci mën a am yoon sama dëkk bi yàlla aaral na ma ko ci mbooleem luy luy luy lore ak luy luy yàq sama diine ji suñu borom sangal na ma ko ñoŋal ñoŋalal na ma ko ba ba adduna tukki duutu yàq samay doom kenn du gis ñoom lay xabat lu dul diine lislaam samay taalibe bëgg rek la ñuy mel lan mo may sëñ Tuubaa loolu li nga xamne mo meuna galankor a ma, wala ite touba be ay pexem bu doon songu lolou lay meuna songu fiko fi ko bi denj ba tax touba bi munu ci won dara ba tax yoyu mu tuddu yep ñong ba mu am ci ndam li ko ko may moy seigne bi dafa wakkirlu ci borom subhanahu wa taala baye ko leppam nak yor jomi bopam lolou mo xone sakuma bakkan bi ba xam lu xam fan lay yam sàkkuma jëmm ji ba xam lu mu àttan waaye sama ngor ak sama jom maa ko moom ngorom ak jomam la yor li ci des lépp da ko bàyyi ak yàlla te loolu mooy wàkkirlu ci yàlla dëgg dëgg wàkkirlu mooy lim ko dénk yàlla xam ne keneen ku ko dénkoon ku yàlla moroor moo tax mu ne sama bakkanu bopp bi dénk naa ko yàlla moo tax tubaab yi jéemal ko ba sonn mënuñ ci moom dara sama diine ji dénk naa ko yàlla moo tax fu ñu ko yóbbu ngir gàllankoor diinam diine ji gën faa jollee gën faa eh, tisaaroo mu ne sama samay taalibe dénk naa leen yàlla samay doom dénk naa leen yàlla sama dëkk bii di Touba dénk naa ko yàlla kon mbokk yi bayiti Serigne Touba yi nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ci rapport bi mu am digganteem ak boromam ak génne gim ci génne lépp luy bokkaale. jërëjëf Serigne Fallou Galassi la bayitu bi dinañ jox dig daje incha allah ëllëg ak jàmm. حماني على ماني